هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مكوجيني بجلال وحني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يونجي لين دي نيو نيو بيغن تيد سي نيو يتي نيو الاسلام bu bëggee jàll na ma def signe. di jiital ci nuyoo sëriñ Mouhamadul Xayr Diop ak mbooleem ay rakkam waaye tamit di nuyu kilifa diine yi fi nekk tekk ak kilifa aada yi waaye di nuyu sama mbokku taalibe yi waaye tamit di nuyu mbooleem mbokk jullit ñi fi teew ñëpp. nuyu gi nag kiñ ci wuutu fii mooy sëriñ Maxtaar Naar loo ci Kokki moo ñu yebal ci barab bu tedd bi ci ëtt bu tedd bi ci barabu barke bi waaye tamit ci barabu lislaam bi waaye di am mbégte bu rëy rëy ci yónni giñ ma yónni fii ci barab bu mel nii muy barab boo xam ne bokk na ci barabu yàlla yi ci kaw suuf ndax barab la bu ñuy jàngee alquranul karim di fi jàngale ci diine ji nga xam ne moom lañu borom bi subhaanahu wa taala sant sëriñ Muxtaar Naar loo mu ngi li nuyoom yi gën a tedd yi gën sell yi gën a barkeel mu ngi koy jottali sëriñ Mahamadul Xayri Diop ak ay rakkam ak waa xadara bi yépp di jottali aussi nuyo mbooleemu waa daara kokki te ñuy wax ci seen làmmiñ ñoom ñépp di jottali ba tey ay ziyaaraam mu ngi leen di ziyaara ziyaara yi gën a tedd bu sañoon dul woon ak yenn bu diis kon moo fi ñëwal boppam ndax boroom barab bi way juram la borom barab bi way juram la mooy sëriñ Mor Diop te jullit ñëpp xam nañu diggante sëñ Ahmed Saxiir Lo ak sëriñ Mor Diop ñu nekkoon ay seex bokkoon benn tool boo xam ne ñoom ñëpp ci lañ doon xëy ci lañ doon gont ci lañ doon fanaan ci lañ doon yend muy toolub alquran ñu séddoo loolu liggi doon ci liggéeyal yàlla li nga xam ni moom la yàlla dogal nu mën ko cee liggéey mu nekk ndono loo xam ni dañ ko bàyyeek ñun te ñu war koo fonk war koo jàpp war koo taxaw ñoom de bàyyilu ñu alal bàyyilu ñu àdduna waaye li ñu bàyyal mooy alquran li ñu bàyyal mooy diine te lolu motax yàlla sakkañu ñu indi ñu ci kaw suuf bi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamuma te jaamu yàlla nak bala nga ko mën def jaamu wér fokk nga jàng te yàlla limu mu wacce ci yaronte bi sallallahu alayhi wa moy iqra moy jàngal iqra bobu nak yàlla waxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom la wax ñëpp moom la wax ñépp jàngal jàngal googee nag moom la sëñ Mor Diop nekkoon dundam yépp ci la ko def sëñ Ahmad Saxiir Lo lool la nekkoon moo nekkoon dundam yépp nit ñu baax ñépp it ci loolu ci lañ doon xëy ci lañ nekkoon ba jóge fi dem nañu nag bàyyeen ñu liggéey bu rëy bii ñu war ko fonk war ko sàmm war ko toppatoo xar ci sumu tànk tubéy loolu lañ ñu bàyyee te mooy li gën ji ndono kon nag sëñ Maxtaar nee na mu ngi ñaax boppam waaye mu ngi leen di ñaax ci ngeen gën a jàpp ci liggéey bi nga xam ni moom la leen mag ñi bàyyee mu ngi koy dénk boppam waaye di ko dénk mbokk jullit ñépp di wax jullit ñi nañu bàyyi xel barab yii amul barab yu ko gën ci kaw suuf muy jàng ak jàngale alquran yàlla moo ñu ko sant ni nañ jàng te alquran ji moom la ñu bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyee ni nañ ci jàpp bu ñu bëggee mucc fii ci àdduna waaye mucc alaxira yàlla ñu ko yàlla defal kon nañ ko fonk ndax alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi ciy jëf ñi ci liggéey ñooñu ñooy ahlullahi wa xaasatuhu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mooy gaay yàlla yi yàlla nañu ci yàlla boole yàlla nañ ci bokk gaa yu yàlla yi nag mooy ñi nga xam ne ñooy jàng alquran te di ko jàngale waaye it mooy ñi nga xam ne ñooy taxawu ñuy jàng ak jàngale al alquran kon boo jàngul boo jàngul jàngalewoo woo na bokk ci ñuy taxawu ñuy jàng ak jàngale kon loolu la suñ moor Diop bàyyee loolu lañu ñu suñ Ahmad Saxiir Lo bàyyee moom la ñu mbooleem nit ñu baax ñi bàyyee kon message boobu la waxoon nañ ko fàttali jullit ñi te xam ni amuñu leneen lu gën li ñu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa nee na xayrukum man taallama alquran wa allama nit ñi li ñuy bari bari bari bari suuf si li muy yaatu yaatu yaatu yaatu ñi ci gën ci doomu aadama yi mooy mooy ñiy jàng ak jàngale alquran kon nag kàddu googu la waxoon nañ ko jottale di di muy feddili di dellu di feddili li nga xam ni mooy mbokk mbokkuk diine ak mbokkuk deret gi nga xam ni moom moo doxoon digganteem ak sëñ moor euh, diggante sëñ Ahmad Saxiir Lo ak sëñ Mor Diop. nee na moom it ci mu ngi ci jàpp fukki loxoom mu ngi ci jàpp fukki loxoom mu ngi leen koy seedeel nii nañu xam ni daara ji ak daara ji ci kokki benn la ñoo bokk benn mission ñoo bokk lenn lu ñu liggéey ñoo bokk benn jubluwaay loolu na ko ñëpp xam nga xam ni bis mu ngi ci ànd ak yéen. bu fi nekk bu fi teewul ci ci jëmmam it daan teew na fi ci xolam teew na fi ci ñaanam teew na ci ci ak ziyaaram kon balaa ñuy gàddal kàddu balaa ñuy guddal kàddu gi bay dérivé ñu ngi ñu ngi ñu ngi yemale foofu kàddu gi di wane daal sëñ Maxtaar mu ngi leen di ziyaara mu ngi leen di ñaanal mu ngi bokk ak yéen ci bis bi mu ngi ñaanit ki nga xam ne mooy sëñ Moodu Xayrit yàlla teg ko fii yàlla dimbali ko taxawu ko jàppale ko moom ak ay rakkam ba mis ba yan bi nga xam ne moom la leen sëñ moor Diop bàyyee yàlla dimbali leen ba ba ñu yóbbu ko fi mu war a àgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di ziyaara di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu fekk ko ay déwén yu baree bari di ñaan yàlla it lépp luñ fi ñaan lépp luñ fi jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla def ci seen misaanu xasanaat tànk ñu fi doxee ñëw jo doxe ko di ko dellu lépp yàlla nekk tànku yiw yàlla ñoo ngi ziyaara ñëpp di baalu àq ñëpp tey baalu àq ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Abdou Khader Diak.